Euh, ñi ngi fi ak euh, député maire Cheikh Seck du euh, député à l'Assemblée nationale nekk maire bu Ndindi monsieur Seck ñi ngi lay nuyu di la laaj li nga xamante ni moo jëm ci parenage gis nañu élection présidentielle bi dañ ko exigé woon waaye local yi ñu ne amul ban jàngat nga ci am. parrainage bi ni ñu ko defee woon ci élection présidentielle li ma mun a wax mooy mënul woon ñàkk mënul woon ñàkk parce que su ñàkkoon. parrainage amul woon mun nañu am mais contentieux boo xam ne après élection yi kenn du ko mën a gérer parce que ci nombre de candidats yi mais ci organisation bi sur beaucoup de choses moo tax bi ñu ko indee man bokkoon naa ci ñi nga xam dañ ko rafetlu woon d'accord ci parce que képp koo xam ni nag da nga bëgg a jiite réew war ngaa mën a am le minimum quand même de militants. Euh, ci local yi aussi dañu waxoon ne dégg naa. ni dootul am ci lu commission bi décidé am bi man gêné wu woon amoon na bi euh, principe bi d'accordoon naa ci mais mise en œuvre bi doon na am problème euh, administration dafa amul personnel bu mag bu ko mën a def parce que boo jëlee par exemple nga jël département Diourbel mu nekk onze communes mm-hmm. commune bu ci nekk xamuloo ñaata liste lay am nga dem ci ki ko war a valider ki ko war a xool superviser loolu c'est l'administration territoriale sous-préfet bi am na ay sous-préfecture yoo xam ni sous-préfet ba sax amul adjoint wala moom ak benn adjoint noo fa nekk amul policier amul gendarme amul keneen ñooñu suñu bëggee toog dans un délai boo xam ni bu réduit la pour di seet liste yi di ko topp benn par benn mhm. pour xool doublon yi pour vérifier signature yi mhm. vérifier adresse yi kooku mën na nekk problème hmm. problème boo xam ne mën na indi ay coow ay coow yoo xam ne c'est inutile hmm. donc je pense que commission bi euh, ça euh, elle a été très pertinente cette commission de prendre cette décision hmm. donc pour man euh, maa ngi saluer décision boobu parce que élection locale moom je pense que jarul parrainage parce que ñun ñëpp xamante nañ comme nag nombre de listes bi mënoo ko limiter eh, mais loolu jarul parrainage da ku ci nekk dem wuti ñu bëgg a présenté wu ñu présenté wu. Mhm. ku remplir conditions yi pour présenté wu ñu valider sa liste. Mhm. su ñu ko valider nga dem compétition. ki nga mhm. xam ne nit ñi bëgg nañu ko ñu fal ko. waaw donc foofu moom. vraiment parrainage bi ñu supprimer man awma ci benn problème. di rafetlu nag maire bi nga xam ni léegi moom bala ngaa dem élection nga xam ko. parce que li ñu doon gis bu jëkk mhm. mais lu doyoon waar la. waaw mais foofu mais am na ñuy wax que ne euh, ci euh, présidentielles yi da ngeen bëggoon a faagaagal ay candidats yu dérangé ku ci mel ni Khalifa Sall wala euh, Karim loo ciy tontu. bala ngaa faagaagal candidature nit ki. candidature bi nekk lu valable lu mën a nekk. Mhm. parce que ñoom yoon moo dàq seen candidature. Mhm. comme yoon moo dàq seen candidature parce que def nañu objet yoo xam ni ay condamnation la kooku ñun suñu nekku ci. parce que xam nga il faut Sénégal ñu différencier wu la séparation des pouvoirs. Mmh. pouvoir exécutif dafa am rôle am. Mhm. pouvoir judiciaire am rôle am pouvoir législatif am rôle am. Mhm. c'est pas le pouvoir exécutif moom mooy condamné. Mhm. pouvoir exécutif dossier da koy jox pouvoir judiciaire. pouvoir judiciaire moo koy àtte. moo leen àtte condamné leen. te ñoom ñu ci bari li ñu leen condamné miimuñu ko. donc maintenant. sur le verdict man du ma ci prononcer parce que duma ma juriste je tout sauf juriste mais li ma xam mooy benn intention pour faagaagal candidature amul woon ñooñu yoon moo leen dàq ñi nga xam ne aussi mataluñu woon charte yi nga xam ne mooy tax a nekk candidat ñooñu aussi dañoo amuti nit parce que boo amatul nit no vraiment ñëw rek ci géew bi pour jaxase ko. kooku aussi. mais wane nañ seeni i ba mënuñu woon am nombre bi ñu leen laaj. voilà. Euh, un peu en arrière waxaat ci local yi euh, bu ñuy def local yi maire bi déjà dañ koy xam bon suñu voté les maire bi adjoint yi moom naka lañ leen fas yéene tànn. oui mais li nga xam ni ci lañu ci moo ëpp ci consensus bi. mooy adjoint ñu bàyyi ko na mu meloon. maire bi c'est normal que ñu xam parce que xam nga nit kuy wate ku ne am na ku la tax di wate nga yaakaar ni kii mooy maire bi parce que on a vu des coups d'état après élection ñoo xam ni wóor na leen ni quatre-vingt pour cent bi wate diw moo tax ñu wate bu loola passé nit ñi dem def ay complot ànd même ak des gens de l'opposition pour ñëw jéem a doon maire loolu aussi jaaduwut nit ñi bu ñuy wate lu toll ni maire nga xam ni mooy premier magistrat commune am yore ay charge mhm. nekk démembrement de l'État mhm. ku koy wateel war ngaa xam ni kii laay wateel pour mu nekk maire pour mu nekk magistrat sama dëkk mhm. donc loolu ça a été une décision magnifique maintenant adjoint yi procédure bi nga xam ne moom la ñu daan def buñ ca tolloo moom la ñuy def képp ku ko bëgg a doon mais da nga ko doon da ngay présenté wu bu ko defee kër nit ñi bëgg wateel ko mais xam nga liste bi aussi daf doon diis bu fekkente ne da ngay def maire bi def adjoint yi dafay mm-hmm. diis mm-hmm. parce que réforme boo xam ni bu nekk itam da ngay commencer par le digeste mm-hmm. commençons par ce qui est possible c'est l'élection du maire déjà en tant que terre de liste mais les adjoints maintenant ce qui s'est passé et dans l'évolution on verra si on peut évoluer ou s'il faut rester stationnaire dans cette position le député maire Cheikh Seck ñi euh, ñaa ngi koy laam-laamee yow est-ce li nga présenté wu pour jël conseil départemental mi ngi sa xel. vous savez euh, pour le moment je suis maire de Ndindi. Mmh. et je me je suis très bien dans ma commune. Mmh. j'ai une mission boo xam ni je suis à quatre-vingt-cinq ou quatre-vingt-dix pour cent réussir naa ko. Mm-hmm. j'ai quand même quelques derniers réglages à faire dans cette commune mhm. s'agissant maintenant du conseil départemental je ne prononce pas mhm. en tout cas du point de vue euh, collectivité territoriale je je connais bien mhm. je connais bien pour avoir été dans la réforme d'abord en tant que en 96 j'étais vice-président du conseil régional sous Iba Gueye j'étais aussi vice-président du conseil régional sous Mamadou Tall mmh. pendant dix ans ensuite premier secrétaire élu du conseil régional mmh. jusqu'à donc euh, euh, pendant deux mandats mhm. et j'ai été président de communauté rurale et aujourd'hui je suis maire mhm. président de commission développement et aménagement territoire et aujourd'hui président de la commission développement rural mhm. où j'ai eu quand même à gérer la titularisation la la la domiciliation parlementaire du ministère des collectivités territoriales. Mmh. Je fais partie également des gens qui ont été nommés par le président Macky pour travailler sur l'acte 3 où j'ai apporté donc ma contribution. Mmh. C'est dire donc en tout cas je connais bien les collectivités territoriales. Mmh. Maintenant le conseil départemental il appartiendra aux Diourbellois mhm. de voir qui est en mesure de développer notre département. Mm-hmm. En tout cas, vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, mm-hmm. mais c'est terrible. Nous ne sentons pas le conseil départemental. Mm-hmm. Moi, je peux dire, de président de conseil rural à aujourd'hui maire, je n'ai jamais été sollicité ou rencontré le conseil départemental pour ma commune. Je n'ai jamais aussi vu une quelconque action du conseil départemental dans ma commune, à part l'hébergement à part l'hébergement euh, pendant les examens mmh. du SEM. Mmh. Et c'est moi qui fais le transport. En général, c'est moi qui fais la grande partie. Je, le, je les vois contribuer à ce niveau, mais du point de vue département, développement, mmh. je n'ai rien vu qui soit fait par le conseil départemental. Euh, député maire Chassek, looy tàggoo. Euh, li may tàggoo mooy ginnaaw bi ma rafet rafetloo lii lépp di wax rek ni élection yi. mu ngi gën di jege euh, ñun ci coalition la ñu nekk muy Benno Bokk Yaakaar il faut que suñu coalition boobu préparer ko bu baax ba nga xam ni buñ ca yeggee yenn coow yu bari duñu ko am ndax euh, ku ñuy tam dëmm waruloo soccoo yeeli liir te defe naa ni c'est seulement dans la discussion dans l'unité et la cohésion kon nous gagnerons le maximum de collectivités territoriales. Mm-hmm. kon boog di nuyu waa Diourbel yépp euh, di leen xamal ni ñun daal nous sommes des commis de ce département de cette région lépp loo xam ne mën nañ ko pour luy defar dund askan wi mm-hmm. di ko gën a woyefal di ko gën a naatal en tout cas ñun ci la ñuy xëy di ci gont mm-hmm. ndax loolu rek moo ñu ñor kañ lañu mën a xaar retrouvaille la grande euh, famille euh, socialiste bu ñu xamee ne fi mu toll nii xajuloo bu mag moom seen diggante. bon moi je pense que euh, xam nga famille socialiste yi ànd ak Khalifa Sall. ils se réclament d'obédience socialiste mais il ne sont plus membres du parti socialiste parce que dañu leen dàqoon ci parti socialiste. ah oui waay bi ñu ko examiner xool li ñu def ni ñoom respecté wuñu statut yi parti bi respecté wuñu charte du militant respecté wuñu règlement intérieur dissidence la ñu indi mais booba parti bi moo prononcé wu dàq leen li nga xam ni moom la parti bi prononcé wu pour dàq leen mais ñoom bis bu ñu defee seen mea culpa wane ni ñoom ñoo juumoon ca dañoo bëgg a dellu siwaat ci seen kër su boobaa dossier la bopp day nekkaat sur la table instance yi parti bi examiner ko mhm. et le moment venu le parti prendra une délai une décision qui sera donc rendue publique mhm. ñu notifie leen ko mhm. mais pour le moment moi je pense que c'est pas à l'ordre du jour parce que c'est des gens qui ont été renvoyés il faut qu'ils reconnaissent leur faute qu'ils fassent leur mea culpa et qu'ils demandent à réintégrer le parti et leur dossier sera examiné est-ce que yéen pare pour am candidat si échéance présidentielle yi ñëw 2024 parti socialiste. vous savez 2024 ñëwagul. 2024 mm-hmm. ñëwagul. Mm-hmm. xam nga lu ñëwagul neexut a prononcé wu. Mm-hmm. mais li ma xam mooy ñun ñu ngi ci coalition. coalition benn Bokk Yaakaar. coalition boobu suñ ca yeggee lu ko décidé ñun ci la ñuy ànd. am nañ suñu baat am ca baat AFP am ca baat keneen am ca baat. ñooñu bu ñu toogee ba wax ba juboo la ñu décidé ñun moom la ñuy def. waaye nag lu ñëwagul jarut wax. ñuy laam-laamee troisième mandat wu président loo ci tontu. vous savez. xam nga foofu itam. nit ki ni salaamaaleykum nga ne ko troisième mandat. président Macky bi ñu ko fale ba mu ay weer. la ñu commencé wax troisième mandat. c'est comme si les gens son pressés mais ñi koy wax ñoom ils ont validé le troisième mandat muy opposition. ci naka ci naka président moom dañ ko fal ci constitution pour sept mu def sept def réforme sous mhm. forme de référendum mhm. ni leen hé lii nga xam ni moom laa bëgg a mhm. dama bëgg limiter sa mandat ñaari mandat yu cinq ans kenn dootul am lu ko ëpp ca kenn du ko mën a jéggi kon wate leen ko ñu wéyal ko coalition Benno Bokk Yaakaar wate ko opposition boycotté ko lànk ni duñ ko wate mais donc ñoom ils ont maintenu le statu quo dans leur subconscient. Mm-hmm. et dans leur conscience ñoom ils ont maintenu le statu quo donc suñu leen doon topp foofu mm-hmm. mais dañu naan ñoom valider nañu ko mm-hmm. waaw mais nag comme problème bi moom posé woogul ci biir coalition bi posé woogul ci ñun suñu biir parti je pense que je m'abstiens pour avancer ci débat boobu mais tout compte fait moi je pense que le débat est un débat bu Benno Bokk Yaakaar parce que opposition moom validé na ko. opposition validé. honorable député maire Cheikh Seck Baol Time mu ngi lay gërëm. jërëjëf maa ngi leen gërëm bu baax a baax.